owi owi ɓoyluhos bo eron waɗuron tiyon a di ti yiki gina musa jen laman bo eron waɗora di ti ibrahima sis iliman bo eron waɗora di ti seri imin <laughs> ali sekka luhus bo eron waɗora funfi mbeleɓɓa bo eron waɗora di tiwawon boy tiwawon bo eron waɗora ron to lo hosnek wonote gapote tunka wajute mo e prepare yen fi mbelamba moy la fami parere ni lan tes fu yogos ndax gamma ndax seda ndax xanle aj fu mindi dalal fu bernelli fu yede ñambi lante yen xoma jamma assalam ndax gamma yenda lahori yen fe koy ki luhus jora mbo ena doku mbo wo tuhro mbo e doku luhus katolikro mbo na doku luhus daro mbo na doku luhus jora mbo na doku fulum njay boppa ponkuy kassa mbo wo tumbo ewa dokuro ni koloban tango fun fe koy luhus nek fun lahoy kemtalay fun e doku mbo wo tuhro pour wo aj gammanden yen ñeero ko koofa ni kolan tes ku nek wo gis fami ak jam ak gamu gi de ñu ci bëgg ci bismillahir rahmanir rahim te yalla ñu ci yeggal ci alhamdullilah rabbil alamin ah, of daan musa na wax ku lim juum waaye ñoo ngi di woowaa tay bi ñay di ko laban ciomban ak kep ku nek ci tundu bi ta muy doom adama ta nga yewoo di wax asadin la ilaha illallah ñu lay wo ci bisub gamu gi ñu ko màggal guddi Seydina Mohamed bu bët set képp ko nekk bu ma limee xëy na moom moo juum am ku ma fàtte te ko noonu nañu ñëw ñun ñëpp li ko wër ci tundug Morolan ba jandeer ba toor ba mbijam yëpp nañu ñëw suñu bisub gàmmu gi ñu fanaanoo ko ci barke ci Seydina Mohamed ñu dalal jaboot ji nañu am xolu muñ ñun ku ñu joggi neel màss ñu diñ ko daan defee ñu defe ni ko ñu defe ni ko ku nekk na bëgg ku ñëw tamit dinañ la xës yaatal dinañ la xës ndaxte wax dafa juum imaam Ibrahima Ciss maa ngi lay ñaanal yàlla ci darje Seydina Muhammad yàlla yëkkati la ci kàttan ak coobaram suñu gàmmu gi ñuy wàcc dañu bëgg suñu njaboot ji ñu yàlla dénk ñu sellal seen boppa ba ku ñëw fii rek xam ne rek dëkku jullit la ñëw dëkku lislaam la ñëw kenn ku ne respecté la nga xamante ne moom la lislaam santaane ba fas yéene nañ ci suñu njaboot ji ñu may ñu ñu sol col yu jot col yoo xam ne ku leen gis nawloo leen waaye nekk ci guddi yàlla nga ne doo sol loo xamante ne kenn du la gis ba nawloo la dañuy naan kii nekkul ci guddi yàlla kon kenn ku ne war na mottali guddi bi mu nekk ba ku ko gis sax xam ni kii la mu yaroo seen kër mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci kii bu baax daal éducation bu baax ndax nit ku ne yaay tax nit respecté la mais nga nekk ci guddi goo xamante ne moom la ñëpp doon séntu nga sol colin boo xamante ne ku la gis du la nawloo rafatul kenn ku ne nekk maa ngi ñaan ya nang ñu toppatool suñu gan yi xale yi jigéen ñi taxaw leen ci liggéey bi respecté leen wàññi respecté leen jox nit ñi lekk parce que nag boo woote ñu wuyu la yomb na waaye am na noo xamante ne nooy woowee nit mu wuyu si la jafe na parce que booy jox nit lekk joxe ko ci condition boo xamante ne rafetu nit ki dina tiim lekk bi sax du ko lekk te yow da ngaa woo ay nit toogal nga jox leen ñu lekk nga ubbi sa kanam gi yaatal sa kanam gi jox leen ñu lekk ba suur bu subaa fu ñu toog duñ ko fàtte. yéen it sama sama ñëpp koo xamante ne invité ñu ne rek te ngay soppee soxna Bintu Thiam ñun ñoo ngi lay woo ñu xamal la ne dina représenté ci bis bi ñun daal bàyyi ñu kenn xale yi nekk suñu kër maam Serigne Alpha Thiombane ñu ngi leen di woo waa Tiwaawoon waa Taïba Ndiaye ñun daal amul fenn fu jeunesse nekk rek bàyyi nañ ko dañoo bëgg ñëpp ñëw te ñëw ci yiw ak ci teggin ak ci ubbeeku ba képp ku ñu gis ak dinañu nawloo. loolu rek laay ñaan ci bis bi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam le 21 la bàyyiwuñu kenn wàccuñu kenn ñu ngi woo ñëpp képp kuy jeunesse ci dëkk yëpp ñoo ngi lay woo bàyyiwuñu kenn loo ñu mën a jàppale ci waañ bi rek nag jàppal ci liggéey bi parce que liggéey bi ëpp nañu doole incha allah jërë ngeen jëf macha allah yéen ñi fi ñëw it kontaan nañ ci